الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بقي نوغي سنت يالا سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي تي يننتم صلى الله عليه وسلم te di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw loolu noo ngi fas yéene dellu waat ngir ànd ak yéen ci sunu fàttali yéen doon defee ci téere bi di xisnul muslim ñu gëjoon ko def lool nag ci lu jëm ci téere boobu waaye nag sunu fàttali gu mujj ci téere boobu jeexaloo nañ azkaaru sabaaxi wal masaa waaye nag dañu koy tàmbaliwaat insha allah ñu fas yéene ko tàmbalee ci zikkar bii nga xam ni mooy duaaul hammi wal bi wala bokk duaaul bi maanaam ñaan gi nga xam ni su njàqare amee jullit bi war na koo ñaan xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci mboolem ak dundam yépp daf doon jàngal saxaaba yi yal na yàlla gërëm leen ci jamono ju nekk rekk lenn lu xew lu ne am na ak ñaan guñ fa war a ñaan moo xam bu jullee ba noppi moo xam buy tëdd buy génn ci këram walla buy dugg ci këram walla buy sol mbubam walla muy dem ca marché ba walla muy dugg ca wanag wa wala mu war a ànd ak soxnaam cib sëy wala yu mel noonu lépp daal lu nekk rekk am na ñaan gun ca war a ñaan yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ko jamono boo xamee ne nag njàqare am na njàqare mooy xat-xati àdduna ay jafe-jafe ak yitte ju të su jotaan yonent bi alayhi salaatu salaam am na ñaan gum daan ñaan xaddis bii nag maanaam ñaan gi xadis bi nu ngi ko jëlee ci abdullahi ibnu abbas yal na ko yàlla gërëm xadis bi it buxaari ak muslim yépp solo nañ ko ibnu abbas yal na ko yàlla gërëm mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su njàqare daan am maanaam xat-xat su daan am jafe-jafe bu daan am daan na wax naan lii lay wax kon ñu jàpp ko bu baax laa ilaha illa allahu alazimu alxalim laa ilaha illa allahu rabu alarshi alazim laa ilaha illa allahu rabu alsamawati wa rabu alardi wa rabu alarshi alkarim ma bamtuwaat ko kon dafa mel ne que ñetti laa ilaha illallah am na ci nu dégluwaat ko bu baax laa ilaha illallahu alazimu alxalim laa ilaha illallahu rabbu alarshi alazim laa ilaha illallahu rabbu wa rabbu alardi wa rabbul arshil karim loolu la daan wax léegi nag dana koy tekk ci wolof insha allah laa ilaha mooy amul benn yàlla joo xam ne yeyoona ak jaamu ci dëgg ku dul yàlla mi nga xam ne moonu bind di allahu subhanahu wa taala amul benn yàlla boo xam ne yeyoona ak jaamu kudul yàlla mu kawe mi nga xam ni mooy allahu subhanahu wa taala moom dong nag mooy yàlla ji yeyoo ak jaamu ci dëgg yàlla moomu al azimu mooy ku màgg ka lool mooy ku tedd ka lool mooy borom mbir yu tedd yi jëmmam tedd na kawe na màgg na ay waxam ak i jëfam kawe na màgg na tedd na mooy alxaliim mooy ku lewet ka lool yàlla mooy ku lewet lewet mooy ku baax ba ba fa mbaax yam mooy lewet maanaam buñ ko doon leeral da xalaat ni yàlla mi bind doomu aadama di ko wërsëgal ci alal di ko wërsëgal ci kàttan di ko wërsëgal ci xam-xam di ko wërsëgal ci sécurité di ko wërsëgal muy yëg bànneex ci lekk ak ci naan ak ci yeneen ay mbiram di ko wërsëgal ci fànn gu nekk ba noppi di ko dundal di ko sàmm teg ci kooku di dëkk di mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala ba noppi yàlla di dëkk di ko suturaal te di ko continuer di ko sàmm di ko continuer di ko wërsëgal kooku mooy ko lawet mooy yàlla kon nag jamonoy jafe-jafe su jotee nga sëgg toroxlu ci kanamu sa borom yëg yëg ni yàlla rekk lañu war a jaamoo yëg ni jafe-jafe am na day waaye nag li wér mooy yàlla mooy ku lawet ka lool di ku baax ka lool loolu jaam bi da ko war a yëgal boppam saabu bu jafe-jafe amee mooy al azim al dellu daal di waxaat ni laa illa allahu mooy amul benn yàlla joo xam ni am na wala jenn yàlla ju yeyoo ak jaamu ci dëgg ku dul allahu subhanahu wa taala moom rekk la noonu war a jaamu moom dong dong lañu war a jaamu moom yàlla rabbul arshil karim yàlla moomu mooy boroom arash mooy boroom arash ju kawe ja mooy boroom arash ju tedd ja mooy borom arash ju kawe ja mooy boroom arash ju tedd ja ñu del waxaat ni laa ilaha illa amul nag benn yàlla ju yeyoo ak jaamu ci dëgg illallahu kudul yàlla mu kawe mii di allahu subhanahu wa taala rabbu samaawaati wa rabbul ardi yàlla moomu nga xam ni moom rekk yeyoo ak jaamu moom mooy boroom asamaan yi waaye mooy boroom suuf maanaam moo bind asamaan ci kattanam te kenn dimbalewu ko waaye moo bind suuf ci kàttanam te kenn dimbaliwu ko wa rabbul arshil karim mooy boroomu arash ju tedd jalool bokkum jullit boo ko seetloo lépp tagg suñ boroom la tabaaraka wa taala boo ko seetloo lépp tagg suñ borom la boo ko seetloo amul fenn foo xam ni yaa ngi naan ko yàlla génne ma ci xat-xat yi yàlla génne ma ci jafe-jafe yi lépp ak tagg suñ borom la loolu nag dafa am jubluwaay bu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jubloo boo seetloo ñaan gi lépp tawxiid la bokk na ci liñ ci mën a jariñoo bi ci njëkk mooy nit ki saa bu yëgee jafe-jafe wala xat-xat wala ay gàllankoor walla ay yitte saa yu ko yëgee dafa war a daw dem ci suñu borom tabaaraka wa gaaral ko boppam toroxlu ci kanamu suñ borom sukk ci kanamam yëgal boppam ni ko yàlla yow dong lañu war a jaamu ak lu mën a xew yëgal boppam ni ko yàlla moom rekk mooy ko lawet ka mooy ko baax ka lool ak lu mën a xew mooy borom asamaan mooy borom suuf moo leen bind ci kàttanam ci man-manam te kenn dimbaliwu ko kon nit ki saa bu yëgee jafe-jafe na daw ci boromam ñu bari ci ñun nag bu jamono mettee dañuy saalit yaakaar ni dañoo war a dem ci keneen ni ko maa ngi nii bindal ma lu ma takk génne ma ci jafe-jafe yi génne ma ci xat-xat yi te fekk yàlla dong nag ci lañ war a daw jëm ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ab saxaaba ni ko ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fastain billah nee na ko booy laaj booy ñaan ñaanal yàlla te booy sàkku ndimbal demal sàkku ji ndimbal ca suñ borom tabaraka wa mooy bu njëkk ba ñaareel ba mooy nit ki ci boppam dafa war a yëg ni ci turi suñ borom yi mën na ci sukkandiku ñaan ci lu ko dimbale yàlla dañ koy ñaan ci ay turam yu màgg yi ñaan ko ci ay turam yu kawe yi ñaan ko ci ay turam yu rafet bu dee dangaa soxla ku la dimbale yàlla mooy ku lawet ka ku baax ka lool bu dee dangaa soxla ku la yërëm yàlla mooy boroom yërmande arrahmaanu rahim dangaa soxla ku la génnee ci ay xat yàlla mooy ku baax ka ku lawet ka lool bu dee danga soxla ku la jéggal yàlla mooy gafuur mooy boroom jéggal danga bëgg ku la nangul sa tuub qaabilu tawbi yàlla mooy nangu ji aji tuub danga bëgg wërsëg wu yokk yàlla mooy ar razaq kon yàlla dees ko war a ñaan ci ay turam yu rafet ya ba ca desit mooy euh, bu nit ki di ñaan sa borom da nga ni ndekete tagg yàlla ci lañ war a tàmbalee ñaan gi lépp sax mën nga ko def ak tagg yàlla ndax nit ki li fekk mi ngi gën a tagg yàlla muy gën a jege yàlla di gën a jege ak nanguk ñaan yàlla li nga koy gën a tagg nga di ko gën a jege sag ñaan di gën a nangu kon ñaan gi lépp nekk mën nañ koo def ak tagg yàlla dong daal di dem suñu yoon bàyyeeg sunu bopp yàlla ba ca des liñ ci mën a jàng mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bari woon na lool mu doon ñaan loo xam ni du wax soxlaam day tagg suñu borom tagg suñ borom tagg suñu borom tagg suñu borom ba bari mu daal di dem du sax wax soxlaam day tagg yàlla rek ba àggal jóg dem loolu bari na ci ñaanu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon bu jafe-jafe amee même boo waxul sa soxla toogal ci béréb taggal yàlla sa borom ci ay turam yu rafet ci ay melokaanam yu màgg ci man-manam kàttanam sañ-sañam tagg ko daa di jóg dem sa yoon bàyyi bàyyeeg sa bopp yàlla subhaanahu wa taala bi ci des mooy jafe-jafe mënul ñàkk ci jullit faaw nit ki dafa war a am jafe-jafe léegoo lekk waaye nag bu jafe-jafe amee la gën a baax te yàlla gën koo bëgg mooy nga daw ci moom sukk ci kanamam toroxlu ci kanamam wadkur fi nafsika wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifatan maanaam saa bu jafe-jafe amee dawal sukk ci sa borom tabaraka wa taala yàlla waxoon na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan nee na ko sa jaam ñi buñ ma la laajee ne leen man ko jege laa lool damay nangu ñaanuk aji ñaan ji saa yu ñu ma ñaane saa yu ñu ma ñaane rek ma nangu ko ba ca des mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xër xër gu mu xëroon maanaam bëgg gu mu bëggoon lool di jàngal saxaaba yi naka lañ war a delloo ci seen borom ci jamonoy jafe-jafe yonent bi ku xër la woon ku bëgg la woon lool di delloo saxaaba saa yu nekk ñu dellu ci seen borom di leen jàngal naka lañu war a delloo ci seen borom ci jamonoy jafe-jafe ci jamonoy xat-xat ak ci yitte yu taw fajo noonu la mbir mi demee kon loolu mooy sunu fàttalee tey bokki jullit yi nit ki léegoleeg jafe-jafe am ñu ne ko waxal ñaan sàngam mu xeeb ñaan ga lool lan moo tax mu xeeb ko ndax ñaan gi ci boppam dafa wayaf ci aw lamiñam wayaf sax ci dégg-dégginam waaye nit ki su amee yaqiin ci boromam tabaraka wa am yaqiin ci boromam jafe-jafe am mu tagg yàlla rek jóg dem bàyyeeg boppam yàlla insha allahu yàlla dana ko fajal aajo ja ak yitte ja xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci beneen xadis ni am na ñaan goo xam ne kenn du ko ñaan ci ay yitteem te yitte ja muy gan ñaan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin te gis ngeen loolu amut wax sa soxla lépp tagg yàlla la yonent bi nee na amul kenn ko am yitte wax loolu te yitte ja kon nañ ko bàyyi xel fexe ko mokkal saa bu jafe-jafe amee xat-xati adduna njàqare am nu di ko faral di ko baril sunu làmmiñ ngir yàlla dinu nu génne ci xatxati àdduna yi ci jafe-jafey àdduna yi yàlla dinu dimbali dinu fajal sunu yitte yi tawoo faju mu baamtuwaat ko bokk yi ñaan gi mooy laa ilaha illa allahu alazimu alxalim laa ilaha alazim laa ilaha illa allahu rabbu samaawaati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kon mbokk yi yal na nu yàlla boole defal jàmm àdduna ak alaaxira defal ko mboolem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu